xaar ndax xam dañu nekk. njiitu coalition gëm sa am na ko Bougane euh, Gueye pour wax ne euh, lii la ah, indi ay preuves pas tout simplement. parce que tout information bi leeragul. xam nga ñu ngi nekk di ko gëstu. di di ah, yoon yoon daf ñu may ñun ginnaaw bi ñu tàggatee ci daara yi ñu jàngee ci wàllum tas xibaar. bala ngaa wax dara nga saytu ko ba mu wér wàllum foncier bi muy wax. boo demee tey jii nii euh, ñu ci mel ni ay ay stade yu ñu doon tudd fii ci biir banlieue bi suuf si ay ay tey jii ay étranger ña nga fay bénéficier wu ñu leen koy jox. Euh, du ma ci mën a sori. Ah, ndax ñoo parce que ñun banlieue moom waaw dee leen ci saytu bu baax a baax te ngeen ubbi ci seen bët. ci biir Dakar digg dakaar fi mu toll nii am na ci ay bërëb yoo xamante ni si ñoo ngi njort ni. ñu ngi ci yoonu di ko jébbal. ay promoteur day leer ay ñoo ngi ay. moo tax ko wax koy daaj benn yoon. non non dafa am noo xamante ni si. Ah. bun buñ la ko tàggatee. waaye yooyu xoola fii Sénégal li ñu moom boo gisee ku ko bëgg a raam da koy wax. Cheikh Omar te doon nga ay njort nañ bi tas quoi. match ah. parce que lu tax ñun boo joxee information bu toll noonu man ma toog fii. nekk député élu bu département de Pikine Cheikh Oumar Talla toog fii. nekk élu bu ville de Pikine sunu fit day dem parce que ñii lii Cheikh Oumar di wax demisme de suuf. moo ci nekk maanaam suuf la ñuy bañ a gis yamul foofu rek te stade bee dañ fa am ay hectares. mais nag maam Diarra loolu aussi dañ ko hérité ci seen régime. en tout cas en tout cas Serigne Sarr il l'a hérité de vous aussi. di nga ko bataay. mais loolu il l'a hérité de vous aussi maam Diarra il l'a hérité de vous. mais il l'a hérité de vous waaw mais jógee ngeen fi mais nag ça ça ne vous mais nag mënu leen exonérer aussi euh, sur ce qui s'est passé non maam Diarra aussi yomb na aussi ngeen ne ñaaw duñ fi non mais maam Diarra mais maam Diarra bi yomb na waaw mais d' accord Mame Diarra aussi Mame Diarra je suis là. Mame Diarra je suis là je suis là. aujourd'hui je me suis permis de parler parce que je suis là. Mame Diarra moi je suis là. ma ne tu n'étais pas là parce que aujourd'hui je me suis permis de parler. parce que ah, je suis tellement de suuf ñu wax ko. alors ah, mais dama ne aussi mais man di di ñëw en arrière. non non non non non ça c'est l'histoire non ça aussi c'est l'histoire. non ça c'est l'histoire de ce pays. on ne peut pas enterrer on ne peut pas enterrer aussi les scandales financiers du PDS aussi loolu kenn mënu ko kenn mënu ko enterrer aussi. Ah, par perte ah non kenn daf koy enterrer. waaw mu noonu waaw. ci jamono bi ma toll laa ñun fu ñu nee. waaw mais mais nag Mame Diarra yéen vous êtes mal placé yéen vous êtes mal placé pour parler aussi vraiment des scandales mais si bien sûr aussi non non dama ne yéen dama ne non dama ne yéen non vous êtes mal placé parce que en la matière en la matière ne pouvez pas donner de leçon en la matière vous ne pouvez pas donner de leçon aussi. mais c'est quoi ton problème alors fàtte xaju fi. non mais dama pas donner leçon problème monsieur Serigne Sall. non mon mon problème xam nga en tautologie c'est quoi Mon problème. Mon, je vais te dire mon problème. Non, tu n'as pas de problème à si, me dire si, parce que ce que tu dis là, tu as tout faux. Parce qu'on est en de parler de l'université de bah, Cheikh Anta de, de, de, de, la ville de Pékin, du suufu ville de Pékin. Mais à Pourquoi tu n'étais pas levé Mais on l'a toujours dit, on l'a dénoncé. on l'a dénoncé. l'a dit, on l'a dénoncé, non, non, on continue de dénoncer ça. C'est bon, c'est ah, oui. l'alarmisme, mais c'est trop facile quand même. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en la matière, vous n'êtes pas les donneurs de leçons. On se calme, Serigne Sall. waaw Mame Diarra si vous. non non man moom bul ma calmer parce que man moom ñëwuma fi pour que. à chaque fois Serigne Saliou di se permettre de dire des fausseries sur Ablaye Wade loolu moom maa ko may. nga ne waaw dañ naan ko nag. waaw léegi maa la ko may. Ablaye Wade a été président de la République. alors def na fi lu baax def na fi aussi lu ñu lu ñu mën a gaañoo si. alors depuis 2012. maintenant am na motif du dëgganteisme parce que la réponse je l'ai donné à Pape Malick Ndour depuis le début je l'ai donné à à kii dama ne ko hmm. bu fekkente ni da ngeen jàpp ni bradage foncier daf doon am. 2012 les Sénégalais ont dit Ablaye Wade oui c'est bon et ont élu Macky Sall. Mhm. su à chaque fois. Mm. Tu me rappelles que Ablaye Wade a fait ceci, a fait que tu es en que. Ah, tey tey tey tey tey tey. non dama ne dama ne en la matière. alors alors alors waaw ah, soo déggee day mel ni tey soo poser le problème foncier ngay comparer régime yi da nga war a mën a placer le président Macky Sall à un certain wala gouvernance bi nga placer ko en un certain niveau de responsabilité te ñu waxantee rek te yàlla tax jël passion bi yëpp te ko fële ñuy analyser les pratiques qui ont été de mise ici dans ce pays bien avant même 2000 jusque là quand même mën nañu wax ne li fiy xew luy jaar yoon la ak loo munti wax. lan moo jaar non non xaaral ma expliquer li fi xew. Mm. globalement soo koy analyser parce que nag gouvernance toujours day am ay failles mais nga la gouvernance foncière. su ñuy wax rek jël par parloo teg ko fële quand si lu fi xew depuis indépendance ba fu ñu toll nii président Macky Sall quand moo jël champion ci gestion bu leer gestion bu baax ci nu ñu koy doxalee. et je m'explique. non non waaw non lay wax dama lay wax waaw dama lay wax man waaw damay wax damay wax man damay wax damay wax man damay jox man damay jox non xam nga problème non xam nga damay joxe exemple. Ah. président Macky Sall il a eu je je vous hmm. a eu l'histoire du foncier. de l'aéroport gis ngeen Fatou Abdou les gens ne le pas mais lu gën a am solo ci aéroport ñu jël ko jox ko caisse de dépôt et de consignation mu koy gérer c'est de l'argent public c'est une pratique boo xam ne daanaka Sénégal xamuñu woon loolu su ñu toppoon pratique yi am dañuy jël affaire bi yóbbu ko ci COD dagg ko ay 150 mètres carrés wala ay 200 mètres carrés ñii nga man nag bu wax dama leen déglu man dama am ma wax waaw ah, non mënu wax ma bàyyi leen ku nekk di wax man mhm. yaa ngi dégg président Macky Sall inauguré na benn air boo xam ne yaakaar naa loolu suñu gënee doxal dina baax président Macky Sall ñëw na ñu jël ay suuf mettre tous les sénégalais au même niveau. par rapport ak non non bien sûr non mais sëñ Fallou sëñ Fallou bàyyi ma moo après ngeen yàq. ma amul problème il faut ngeen may moo. waaw mais il faut waaw il faut ma laisser waay waay waaw mais moi parler waaw mais waaw mais non man dama la jox exemple non xam nga man dama la jox exemple bu concret waaw da nga waaw mais il faut nga naan ndox bu sedd pour mën a dal waaw dama la waaw da ngay bàyyi ma wax la waaw da ngay waaw la Mame Diarra xam nga man sooy wax Mame yaay Mame ah, Diarra waaw <laughs> léegi waaw yaa waaw Mame waaw maam Diarra maam Diarra da a calmer da ngay calmer man man rek ma démontré leen. Eh, waaw mais man mënu ma baral parce que duñ ma déglu. alors euh, il faut qu'on s'écoute. ah voilà bien sûr il faut que vous m'écoutez man dañ ko benn bennal rek. benn góoto góoto yàqul góoto góoto yàqul dërëbëy bàyyi la ma ma yàggale rek. dama ne jël nañu suufu aéroport jël ko ne ne on met les Sénégalais au même niveau maanaam dañ koy jaay ñëpp dañ ciy nem au même niveau d' information et au même niveau yaa ngi dégg ñu jël ko jox ko CDC ñu ne xaalis boobu lan lay jëriñ ñu ne xaalis boobu dañ koy jël jox ko Safri mu yaxanal beneen suuf boo xam ne day tax sénégalais bi nga xam ne peut-être amul accès ci suuf bële mu mën a am accès suuf bi loolu c'est pratique que président a a parlé nga baal ma. parce que nag kenn mënuñu tere wax loolu peut-être maam nag may bàyyi ma wax. parce que tamit voilà bàyyi ma ma wax tey lu coow li di rëy rëy rëy rëy Sénégal déggooguñ fii cité Macky Sall wala cité Marème Faye Sall. dama dégg waa xaaral dégg nañ fii cité Kër Góor gi yoo xam ne ñëpp xam nañ dans quelles conditions lañ joxe suuf soosu. ah mais tey suñu waxaat ba ba ba laissez moi terminer. waaw mais il faut me laisser il faut me laisser terminer aussi mais laissez moi terminer s'il vous plaît je vous demande solennellement de me terminer. d'accord waaw mais damay wax mais man lu. waaw mais sa kee su may wax damay dañ may dëgg da ngeen moom. waaw mais laissez moi parler. waaw mais laissez waaw laissez moi parler. yaa ah, ngi dégg waaw laissez laissez moi parler. waaw laissez. mais est-ce que mën ngeen a bàyyi waaw est-ce que mën ngeen a bàyyi moom waaw il faut ngeen waaw mais il faut ngeen waaw il faut ngeen déglu ma waaw mais laissez-moi terminer Mame Diarra xam nga Mame Diarra man dama bëgg ñëw débat bu civilisé voilà man su may wax très bien man loolu laa bëgg dégg nga nañ ko def nank nank rek amul benn problème waaw léegi bàyyi ma wax waaw léegi avant nga maa may bu saf waaw avant nga may mbuutam kii gi. waa léegi xaaral kii gi. waa léegi mais li nga xamante ne moom la bëggoon wax. mais waaw damay leeral. waaw damay leeral sur le Saint Coran. oui kër góor gi góor gi Ablaye Wade lañ ko tudd. mën naa la leeral foofu. non dama lay laaj. waaw dama lay leeral foofu. Ah, waaw parce que Ablaye Wade su jëlee benn parti boo xam ne da ko jël mu nekk propriété exclusive fa mu tudd PDS mu jël fa benn titre foncier jox ko PDS mu am fa lu toll te waxul daf ko jënd fenn quand même cité boobu su ñu ko tuddee cité kër góor gi kër góor gi la war tudd ndax kër góor gi moo moom PDS te PDS moo am foofu siège boo xam ne c'est o nom de Abdoulaye Wade xam nga loolu kenn duñ ko tere non bàyyi ma yeggali non non non bàyyi ma yeggali man dama noonu yeggali non xam nga dama jox exemple Abdou il faut me laisser parler non mais mais tout le monde sait non dañu waxal dëgg te yàlla non tout le monde sait que Abdoulaye Wade seen siège fii ñun nu ñu def ba am siège ñun jënd ko ñoom defuñu ba jënd ko ñëpp xam nañ ko par voie de bail dans les mêmes conditions la cité te loolu kenn du ko weddi te parti bi c' est la la duggee bàyyi ma yàggale li ma bëgg a mooy. waaw dañ ko jënd dañ ko jënd dañ ko jënd propriété privée. privé de Dakar dem dikk ñu jënd ko. waaye la ca Sadou mais Sadou kon mais Sadou je n'ai pas je n'ai pas parlé alors. non mais mais mais il faut que ñu waxtaan. mais il faut non non vous ne laissez terminer. non non non mais vous ne. du ma gedd de man du ma gedd man du ma la gedd mais man dama am mais mais mais xoolal wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma vous ne laissez terminer. le débat ne se transposera pas sur man da nga ma déglu de waaw man da nga ma déglu de mais man da nga ma déglu de xam nga man xam nga xam nga man xam nga yow sama yaay nga bëgguma la ruube mais est-ce que xam nga ne su ma waaw est-ce que xam nga ne mais est-ce que xam nga ne man li ma bëgg wax dinaa ko wax li ma bëgg wax sama naa ko li ma bëgg wax waaw li ma bëgg wax mais li ma bëgg wax waaw li ma bëgg wax waaw li ma bëgg wax li ma bëgg wax li ma bëgg wax li ma bëgg wax dinaa ko wax de waaw mais est-ce que xam nga ne non est-ce que waaw léegi beneen bi beneen bi mooy on parle on parle d'instruction. non Macky est l'actuel président du Sénégal. waaw on parle d'instruction. on parle d'instruction. on parle d'instruction. on parle d'instruction. Fatou Abdou, c'est toi qui anime l'émission. waaw l'émission on n'en parle pas ici. non non non man tudd ma Ablaye waa léegi dama tudd Ablaye waa oh, léegi dama tudd Ablaye waa léegi dama tudd Ablaye. on parle aujourd'hui. non non day bàyyi Ablaye Wade yow. alors aujourd'hui on parle d'instruction man surtout man tudd ma Ablaye man on parle d'instruction. waaw tudd ma ko dégg on parle d'institution mais on oublie que CICES institution la fi ak institution la fi woon CICES duñ ko agressé agressé wuñ benn yoon ci structure bu mel ni CICES ci Sénégal fii loolu c'est une réalité qui est mu neex sama yaay ji ak mu naqari ko dëgg la xam naa su ma paree nga def ci kaani waaye suukar la bu may def sa bopp parce que c'est la réalité qui est là agression wu institution moom dañ ko dollu ci Ablaye Wade xanaa fekkee dañ doon dafay am président Macky Sall fii luñ ciy wax lii wax ko c'est vrai man condamné ministre bi joxe lañu ci war a jox on a parlé de de de de fële de de de de de de de de kii de de Dantec mais Dantec dañu expliqué lépp principe bi ni mu demee li ñu def Dantec yàlla xam na ne billaahi wallaahi wa taala su fekkoon noonu la ñu defoon si ses su fekkoon noonu lañ conditions yi ñu joxee 3 hectares dante gi su fekkoon dans les mêmes conditions lañ joxee woon CICES fii. Eh, eh, bi eh, ñuy distribué di ko maye. c'est pas non non non xaaral rek bàyyi ma non non non ça serait ça serait ah, une bonne nouvelle pour le Sénégal xaaral ça serait une bonne nouvelle pour le Sénégal. aéroport foofu laay terminé aéroport bu ñuy wax xaaral xaaral xaaral waaw waaw même non non je non je ne dis pas c'est pas un scandale. Ah. c'est pas un scandale c'est la raison pour laquelle non non c'est une bonne pratique. une pratique qui existe dans le cadre du financement des projets de l'État mais oui ma Serigne Serigne c'est une ah, bonne Serigne soo xamul dama lay leeral c' est une bonne pratique c' est une référence en termes de financement des infrastructures publiques maintenant maintenant loolu loolu dama ko wax su aéroport waaw baal ma baal ma baal ma mamel ñëw nañ fii dañuy wax mu neex nag ak mu naqari mamel fii mu ngi fii monument de la renaissance lañu fi def ñëpp gis nañ ne foofu rek scandale la woon te kenn waxu ko eh, te dañ koy wax waa xaar waa xaaral ñu ñëpp on a combattu le fu may terminer fu may terminer fu may terminer fu may terminer ces accusations yi nga wax yëpp aujourd'hui non du accusation man c'est des faits historiques yëpp yëpp le président de la République est content parce que mais, mais en quoi il est comptable En quoi il est comptable C'était lui le ministre des Finances. C'était lui le ah, directeur de de Non, écoute, Fatou, man li may wax, xam nga man, Fatou, man li may wax. Fatou, Fatou, pour revenir, xam nga Fatou, xam nga man Fatou, Fatou, Fatou, xam nga débat bi, xam nga xam nga ba waaw dinaa la tontu loolu. Fatou, Fatou, Fatou, man débat bi, débat bi dañoo dugg ci benn cadre Yaa ngi dégg mm. man leeral ci joxe sama position de manière claire. Ñu bëgg transposer débat bi, jël ko ci l'appréciation globale qu'on doit se faire de la politique entre guillemets foncière du président de la République de manière honnête et claire man li may wax du ma wax kenn yàlla mu ngi lay ñu tëgg sama yàlla damay wax en toute sincérité ku dee ak sa bàmmeel sooy comparer fii les pratiques yu ñu fi nekkee ba en terme de gestion foncière billahi wallahi wa taala li ma jàpp gëm ko te bépp sénégalais bu objectif bu ko wax war a wax dëgg mooy président Macky Sall un champion de bonne gestion dans se permet comparer des scandales. Là, sa devient extrêmement grave. Ah, ah, mu ngi wax aéroport attendez je mu ngi wax aéroport Fatou Abdou demee la ñuy sargal jeune bi nga xam ne moo jiite lépp yi muy tànk les jeunes bi nga xam ne dañ ko arrêté pendant des mois muy maam Biram Mbengue xam nga lan moo tax gis nga aéroport bi suñu titre foncier maam lañ man je suis de Yoff ban koy récupérer jokkuñu leen dara def nañ ci aéroport parce que état moo ko soxla rek dama damay laajte pour xam yi génn luñ laal Dakar rek lii daana Abdoulaye Diouf Sarr di sama ndijaay hmm. dafa am wax joo xam ne moom la wax ah. ne lébu yi amuñu fi dara alors que hmm. muy ab lébu xam ne ay terre la yoo xam ne njaboot yi ñoo ko moom am seen i titre foncier. ah dañu amoon titre foncier. mais dégloo li ma la wax. dañ ko moom lan ko caxab caxabee daggate ko jaay ko booy yi révolutionné xeex mag ñi tànk yeex ñëpp taxaw la bëgg xeex. Hmm. ba tey ji président Macky Sall ñu ngi nekkoon tu vois pour résoudre ce problème laa am yeneen ñu leen joxaat. c'est pour vous dire gis nga fii kumba am ndey la ak kumba amul ndey dama ne. on a des hauts fonctionnaires véreux des politiciens véreux dama ne un ministre de la République ne peut pas avoir des milliards. alors dans ce pays un ministre de la République ou bien ñi tenant du pouvoir dañ leen xam de kenn ci professionnel. alors kenn mësu si table gerte caaf réussir kenn mësu si employé nit kenn xamu leen. président moo ñëw xëcc la andi en un record tu es milliardaire. mais wax ne amoon na peut être volonté euh, pour que lii dañ parce que wax na fi ne lu toll ci quatre vingt dix pour cent ci dossiers yi nga xam ne daf koy jot ci foncier bi lay joge mu taxawal ay kuréel pour bëggoon solution malheureusement na ñu ko wër wala ñi nga xamante ne ñoo war a doxal ñoo tax ba mbir yi yegg si fii aujourd'hui mais le problème qui se pose c' que même autorail buy daw locomotive bi mooy baax. c' est clair bi mooy baax. dama ne il faut avoir carotte ak bâton ñun lii tax ñun ñu nekkoon jàpp jàppale président Macky Sall dañ ko xeexal xam nga laal la daf ñu jaayoon la restauration des valeurs je le dis tout le temps li ñu xeexoon ba régime bi fi jóge woon jóge fi moom bu ñëwee ñuy gis les mêmes pratique et de manière beaucoup plus grave ça pose problème dañuy taxawaat dañuy taxawaat aujourd'hui la problème qui se pose alors c'est que ce qu'on constate chaîne la boo xam ne tey ñu ngi fi et ils encouragent ces pratiques parce que dañ ciy gis seen bopp Sénégal duñ mas a dem tant que bàyyi ñu jël réew mi di ko jox ay politiciens gis nga ñi ma gis nii. billaay wallaay taala ay sàcc lañ nga baal ma ci kàddu gi. alors euh, honorable yaa ngi koy bañ mais mais tey est-ce que dañu mën nañu wax ne peut-être rupture amul parce que mënuñu wax Sénégal te duñu wax ci li nga xam ne mooy gestion yi fi jaar euh, li fi récent mooy de 2000 à 2012 bi nga xamante ne wax naa ko sànq plusieurs scandales euh, fonciers dañu ci tudd régime bi nga xam ne moo fi nekkoon muy le PDS tey c'est bon nga taxaw kaas li fi nekk mais est-ce que mën nañu ci dindi li nga xam ne jotoon na am parce que état est une continuité ñoom ñu taxaw ne bu fekkee scandale am na wala njuuj njaaj am na kon ci yéen la ñu ko doonee. xam nga ma man li ma li ma bëgg wax sànq mon fils euh, Pape Malick mooy wax da nga koy teg ci tegukaay bi mu tegu fa. parce que soo gisee ma lay wax toujours euh, bu ñu def saa ñu buggee indi débat actu d' actualité ñu retourner vingt ans en arrière. pour mën a indi débat daal man xaw ma c'est par peur d'affronter le débat moo tax ñu koy jaarale ci l'ancien régime xaw ma parce que tout simplement même journalistes yi actuellement sur les plateaux les chroniqueurs on sont yenn saa yi dañuy sensible ci tudd yenn dossiers yi xam naa ragal bu subaa ñu fekk la sa kër comme waa ji dafa gaaw ci yóbbuwaate kaso te ak te mu fekk la ca buntu kër ga ni la wax ni la wax di la wax ne la. non Mame Diarra il faut qu'on soit clair. s'il vous plaît s'il vous plaît. s'il vous plaît laissez-moi terminer. si vous vous sentez si mouchez-vous et laissez-moi terminer. souffrez en silence et laissez-moi terminer monsieur. parce que je vais finir. ok voilà loolu la. Ndiamo. Ndiamo man danga may gis nii rek may wax parce que li may wax loo xamoo ko par force laay wax. man dama ne su fekkente ni nit ñi dañu xaw a tiit parfois ñu woo leen le lendemain lii lii ma xamante ne moom lañ tuddee pilule du lendemain à la tique ñu naan ko moo tax parfois il faut qu'il xaw ma convoque li le le le passé. pour wax sur le présent mais ci loolu chroniqueur ak journaliste la bokk. Fat Abdou on interroge l'histoire aussi la méthode dont vous traitez l'information lii day lëndëmal sax xelu Sénégalais yi ñu xam ci liñ ci war a xam. nous sommes de parler d'actualité ginnaaw fii dañoo fekk benn lopp benn terre bu tolluñ ci huit mille et quelques mètres carrés ñu jox ko benn nit ci man awma kër nit ñi fii nii ñu war fi def déguerpissement total d'une cité à ginnaaw raay noor par exemple mhm. jëlee leen fa toxal dëkk ba yépp mat ñu trois mille maisons utal leen fa ku ne parcelle de terre tabaxal leen koy appartement ci xaalis gouvernement jox leen ko ñu dem dëkki fa parce que tout simplement foofu ndox yàq na ko ba mënatuñ ko ñu jël ko jox ko benn nit ni ko tabax ko ay immeuble jaay ko di ko loué par weer di am xaalis di def ci sa poos boobu nit sénégalais la cap-verdien la Côte d'Ivoirien la malien la keneen la na nga xam ne loolu la ñuy def sénégalais yi loolu mooy waxtaan bi ñuy waxtaan tey mhm. et moi je voulais qu'on met le débat là bañ ko transposer ci waxu euh, foire ba jeexoon na aéroport ba ca géjawaay fii la xari jaar dama ne fii moo toog ci bureau sàcc ko benn sénégalais ni ko tabaxal ñu bokk séddoo lii mooy wax ji ñu war ko wax sénégalais yi sénégalais yi dégg ko mais buñ ko transport c'est vrai loolu sa xalaat la nag dama ne c'est vrai mais yaay booy loolu dama ne c'est vrai Pape Malick waaye yow tam c'est vrai xam nga loolu ay loolu ay loolu ay waxu ruube la rek nga loolu demeewul noonu bu ko bugaan génnewul woon sénégalais yi duñ ko yi xam nga lu ñu wax eh sénégalais yi sàcc nañ seen suuf université la nekk jox nañ ko benn sénégalais loolu mooy wax ci. alors bàyyi leen loolu nit ñi di fees di tuuru ngeccu leen. alors alors ba pare jël suufu jàmbur di ko xëy. honorable député Mame Diarra Fam alors dañuy dem ci beneen point euh, muy li nga xam ne tey euh, moom mooy waaw euh, on a parlé du foncier une heure de temps. Ah, je pense que je pense que très rapidement alors Serigne Saliou. alors ah, non man ce que je voulais tout simplement dire. c'est que Pape Malick li nga wax léegi concernant le le l'hôpital Le Dantec foofu la ne n'est pas légale la non la vente n'est pas légale la vente de ces terrains à mettre en des terrains à mettre en valeur ça ça doit être autorisé par une loi ça ça c'est une loi de 1976 foofu je suis vraiment désolé foofu moom nit ñi dañu jalgati loolu dañu jalgati.

mais je dis que boo xamee comment fonctionne la solidarité gouvernementale xam nga ne loolu mënul egsi ba sur la signature du gouverneur sans pour autant que Cheikh Omar Anne ne soit au courant. mais nag dama bëgg wax ne aussi aujourd'hui Pape Malick li nga doon wax léegi ci Mame Diarra Macky Sall il a été comptable des sept premières années quand même vraiment de la législature du magistère de d'Abdoulaye Wade kooku aussi li fa xew comme scandale foncier moom am na ci wàll. te je dis que aussi en la matière Mame Diarra daf koy bañ mais je dis que en la matière aussi le PDS n'a pas des leçons vraiment je suis vraiment désolé en matière de scandale foncier moom depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui li fi xew ci dëkk bi moom c'est inadmissible je pense que dañu dañuy dem dañuy dem ci beneen point bi bokk na ci li nga xam ne moom mooy actualité politique euh, installation euh, assemblée nationale le 12 septembre euh, ñu fas yéene koo amal ci installation boobu nag di war a tabb ki nga xam ne kon moom mooy jiite assemblée nationale mais ci biir coalition wallu d'abord maam Diarra ci biir coalition wallu ñaar dégg nañ fa ñoo xamante ne samp seen ndënd ñu déggagum muy Mamadou Lamine Thiam ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Abdou Bara Dolly ci intercoalition bi également mu am yeneen ñaar yoo xam ne di Ahmed Aïdara bi ne du bàyyi Barthélémy Diaz également bi samp ndëndam et d'après bu ñu sukkandikoo certains quotidiens pour ne pas citer peut-être le journal Les Échos ci réunion boo xam ne amoon na li Ousmane Sonko wax mooy xel xalaatul que njiitu Assemblée nationale di jiite beneen coalition di fa jóge fu dul coalition Yewwi Askan Wi bu ñu dajalee loolu noonu yëpp nan ngeen aujourd'hui ci biir coalition wàllu waaw merci beaucoup juste euh, ay pour parler dafa am loo xamante ne. tur euh, bi dina am le ministre chargé des relations avec des institutions dina joxe kàddu dina wax. o nom du gouvernement message gouvernement bi après dañu tànn député bi gën a mag par rapport à l'âge ce qu'on appelle le doyen moom dañ koy wo ak ki gën a tuuti député bi gën a nekk ndaw ñoom la ñuy woo kii mooy diriger kenn ki moom mooy assister comme secrétaire administration assemblée bi dina leen wax ñoom li ñu war a def ils vont passer maintenant à l'appel président bi installé président de séance bi dafay jox secteur élu mu commencé def appel député yi ils seront installés officiellement comme député di Sénégal mais par ordre alphabétique lay dégg dañuy teg ay indi candidat diw candidat diw yow bu la wooyee yaay xool ki ngay ki ngay voté nga dugal ko ci urne bu ñu paree nag après ñu def dépouillement mu nekkee ñaari candidat après ñu def dépouillement bi xool kan moo raw ki raw il sera installé officiellement président de l' nationale du Sénégal. ñoo desandi ak moom ba tey di Abdoulaye Ndiaye indiwaat na tamit ay gindi ci vote bu bureau bu assemblée nationale ni ëllëg ak jàmm bu ñu sukkandikoo ci moom boo moyul nag dina am ay surprise ñu desandi moom ba tey ak Youm Sabalde. léegi nag ba ñu falee président assemblée nationale dañ koy installé officiellement après moom mu toog nag léegi foofu nag foofu day dina jox ay kàddu formuler certainement ay vœux xëy na bu paree nag moom mun a léegi nag nañ jublu léegi maintenant ci élection membre du bureau yi mm. la même formule sera reproduite mais cette euh, c'est au prorata des groupes mm. parce que bu boobaa dañuy xam quels sont les groupes qui sont constitués naturellement Benno Bokk Yaakaar dina am groupe au sein de l'opposition bi dañ xam ñaata groupe la ñu buñ paree nag léegi maintenant parce que bu ñu xamee groupe yi ñoom dañuy xam ci nekk ñaata vice président nga nar am ku nekk ñaata secrétaire élu nga nar ci nekk ñaata questeur nga nar am parce que bu nekkee ñaari groupe la ça sera au prorata des membres des euh, ñu daal di nag ci wàllu politique ak ndaw ak jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ci UCS di Union centriste du Sénégal fële ca Ziguinchor muy rek parti bu député Abdoulaye Baldé mi nga xamante ne nag jamono ji ñuy àddu la ñu bëgg moo di rek ñu daal di yeesalaat bu baax a baax seen parti bu nu mel ñoom ñooñee nag dañoo jàpp xoolaat bu baax a baax seen formation politique boobee nga xamante ne ne euh, dafa euh, bokk euh, ci seen compagnonnage bi ak majorité présidentielle bi ngir ñu daal di def seen xayma ci rek seen àndandoo bu nu mel ñu ngi ko xam ne nag ginnaaw bañ doon amal ab assemblée général ñu teewlu ci Charlotte Dior gomise moom mooy présidente des femmes bu UCS ak Abdourahmane Diallo. umpu leen ne fan yëngu-yëngu mi ngi am mais yëngu-yëngu boobu. ñun jigéenu UCS yi yëngaluñu dafa fekk ni yëngu-yëngu boobu yépp li ko waral gis ngeen ne léegi dinañ samp assemblée ñu ne deetuwaay ñi ngi waajal ramaniment nit ñi defe ne bu ñu ñëwee tibb suñu biir dañuy am ndam waaye fii ñépp xam nañu kan mooy kan ñun jigéenu UCS yi ñi ne ab Ablaye Balde mooy numéro un fii de Gouloumbou à Diogué dem national romb dem diaspora loolu la ñu gëm ragal féete nag dafay xañ wërsëg ñi ngi ñaan suñu président honorable docteur Abdoulaye Balde ñu dem ci renu